ci ay du fi amee deux mille vingt quatre daf ñuy abal ndaxte réew mi doyal nañu gouvernance Macky Sall doy na réew mi doyal nañ ni li ñu fi taxat teew tey ñun ñëpp association yi fi daje sénégalais yi fi daje yëpp li ñu intéressé mooy jaay doole bi am ci réew mi dafa war a dakk président Macky Sall mi ngi rey économie sénégalaise ndax entreprise yi ëpp doole Sénégal yëpp tëj nañ dàq seeni travailleur loolu mënatu la continuer dama ci lim rek dama ci lim rek dama ciy lim rek ñaar ba ñett fii tey jii gis nañ ni ñooñu nga xam ne dañoo dajale seeni koppar ba teg seeni entreprise di def publicité au Sénégal muy ay régie publicitaire président Macky Sall xëy xëy daal di leen sans bu jox leen benn sommation yëgalu leen ko dem nappaaje seeni panneau ci jaay doole. léegi lam ca bëgg lañ leen bëgg a leeral yéen sénégalais dafa bëgg a rey régie publicitaire au Sénégal yi muy ay sénégalais ay sénégalais. ci yor seen i kër mu ni leen damay tëj seen entreprise yi dem jëli entreprise bu nekk ca France bu tudd JC Décor loolu la Macky Sall bëgg ga def te kenn du ko fi nangoo kon na ñëpp àndandoo régie publicitaire yi pour ñu arrêté jaay doole bi ak di na nappaaje seen i panneau bëgg andi ay panneau tubaab teg ko fi bëgg a noot suñu réew kenn du ko fi nangoo beneen bi nag mooy gis ngeen ni étudiants yi buñ demee ba étudiants yi di grève la faim buñ demee ba étudiants yi ñu leen di jox ay cere yoo am janax ñu dem ba étudiants yi ñu leen di rey ci biir yi teg fa ay policiers yi leen di dugal chaque jour loolu dafa war a dëkk képp koy àtte jàmm day lalu ci dëgg te président Macky Sall nekkul ci dëgg ci jaay doole la nekk kon képp ku bëgg jàmm ci réew mi doo doo signaloo Sénégalais ab charte kenn du fi benn charte xam nga luy dëgg président Macky Sall moo war a arrêté jaay doole bi parce que tant que mi ngi jaay doole nit ñi dañuy jàmmarloo ak moom maintenant nag fi may daaneele fi may daaneele dafa am benn organisation bu tudd Union des magistrats sénégalais UMS mooy ñi nga xam ne ñoom ñoo ni atte bu nu jaaxle ñoom ñi leen fi jiitoon di bureau UMS bii fi nekk tey defoon ay lël ne bu ñu bëggee yoonu Sénégal jaar yoon mooy justice Sénégal jaar yoon dañuy fexe ba président la république mi ngi rëcc ci biir justice bi di jàpp ku ko neex di bàyyi ku ko neex ñu génn ci loxoom bu defee ñu magistrat yi di atte ci seen xel mu dal bu ko defee kenn du leen jaay doole li dal Téliko du leen dal parce que juge Souleymane Téliko wax ni procès Khalifa Sall jaarul yoon moo tax ñu koy bundu xatal ci biir justice bi kon nag man dama jàpp ni union des magistrats sénégalais la ñuy xaar ci ñoom mooy ñu ànd ak sénégalais yëpp revendication bañ amoon te ñëpp rafetlu ko woon ko mooy na Macky Sall génn loxoom ci justice bi ko defee mooy magistrat yi di falante seen biir ñu am une justice indépendante képp am problème boo demee sa xel ànd ak dal maintenant fi may daanele mooy président Macky Sall dani président Macky Sall dani mars dani li mars du fi amati du loolu yokk ay limu policier am ak ay gendarme am jàpp ne dañuy duma ñoom sénégalais yi ko li ngam ñoo koy liggéeyloo léegi bu ñu bu bàyyiwul jaay dooleem bi mu nekkee moom président Macky Sall la xewoon mars la ko raw moo fi nar a am maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp. jërëjëf Dame jërëjëf euh, Serigne Bassirou Cissé Serigne Bassirou Cissé euh, Serigne Bassirou Cissé bu léegi mooy dégg. sa kalpe mi ngi nii après pièce Serigne Bassirou Cissé. ñu woo waa la gauche qui mérite la main droite donc nag cette mérite cette gauche là qui mérite des gauches tonton Ibrahima Sène Je suis venu, c'est Papsar, secrétaire général de la LD Debout, représentant le Congrès de la Renaissance démocratique. Je suis venu apporter un message